ma jox sa number call ak sa Facebook su ma la namee di la xool. yow yaay bi awa lu neex na. wuyu ma soxna ah. li ngay café. non bu ko café. ndax xam naa ne doo ko café te xam naa noonu la safee. te fii doonul lu fi jafe. cum yaa ngi koy riim de. ah cum ah. mais fii exactement war nañ teg suñu bagage bi ah. ah sànq laa bëgg affaire bi dafa war a set. comprendre nga bëgguma mu am trace. trace comprendre nga à la fin dama bëgg lépp set wicc en tout cas waaw. teqal yi ñuy teqal yëpp fii moo si gën a war a set. parce que xamul tax ma wax la loolu. Ah. defarkatu daalu ngaay ay kajoor kajoor lañu. seen xel yi day mbalax. non ay dama xam ay kajoor kajoor seen bopp yee baax. moo tax ma la dafa war set. xam nga la ñuy def ay. comme daan nga xam ne xoolal ci kaw kaw lay doon naka. si kaw. non ah far yow sama gayen nga nul ma mbéje ne ko na jaar gàll naan caañ salaamaaleykum salaam na ngay tey ça va yaa ngi si jàmm ça va bien alhamdulilah ça va bien alhamdulilah yaa ngi noos ça va bien mais ñun de kii lañ euh, bëggoon gaa yi yor clando fii rek kenn parce que dafa am benn course bu ndaw rek buñ bëggoon a dox quoi non bu ndaw rek bu ndaw ah ah. Euh, ah ok yaa yor oto bi ah ah ok eh, waaw mais avant ngay ñuy dem ba côté Ndoukouré il faut dañuy jaar fii nii rek avant ngay àgg ci station bi fële euh, ci benn place foofu noonu rek am ay dàll yu ñu récupéré foofu ah, waa dama ay dàll yu ñuy récupéré rek comme sa après moom euh, da ngay ànd am foo ko déposé waale comme ça lay doon oh 7 non 7000 moom bari na 7000 bari na 7000 wuy ma expliqué la man mën naa la fay lu ëpp 7000. comprendre nga li ma la expliqué. Ah, mais xam nga jàppalante la quoi xam nga 7000 lu dara. 7000 lu dara je trouve ah. amul amuñu temps amuñu temps man la mec galant l'homme idéal l'homme de tous les temps doomu ndey waali ak Paco Jackson Cham démb ñoo ànd baali Thiès bu dégg jaam même Wally amel na ma seen millions yu war a fay nee na tey su dina ça va bien. ça va bien. maa ngi si jàmm. alhamdulilah ça va alhamdulilah. ça va bien. bien bien ça va. ça va bien. ça va daal yi rafet na de daal yi rafet na trop macha allah. merci beaucoup macha allah macha allah rafet na trop. jërëjëf si jàmm. macha allah. am na kii sax càlla kii. en fait man damay voyagé. si wàllu dàll laay business. bon dàll moo tax ma am kër. daal si laa yor sama entreprise bi daal si laa yor sama famille daal moo tax may dem di ñëw ba tax na nag tey su ma teewee fii grâce a jëm ji la parce que moo ne ma business su daal yi mën naa dugg si daalu ngaay parce que aare na te yëfu artisan parce que loxo lañ ko defaree te ngaay gii gis naa ne ku leen jàppale da ngeen dem parce que surtout dal yi non nice am na qualité rafet na plus cuir bi waaw ba tax na daal sama voyage bii di dem li may dem nii incha allahu bëgg naa cinquante paires carak. c'est bon cinquante paires carak. non ñun moom léegi léegi yow cinquante paires yi maanaam nu muy demee. waaw daara ji moom weer ñaata lay en gros carax yi. waaw parce que maa ngi essayé rek ah. waaw parce que leer na ma ni bu yóbboo affaire yi mu dox. dëgg la noonu wóor na ko tedd ki bu yóbboo affaire yi mu dox. lu mu gàtt gàtt da ciy jël plus de six cent personnes. loolu conteneur laay indi. man ay dàll laaj dooguma la. essayage la ay ay ay conteneur laay jëlee fii di ko yóbbu. yóbbu lii maa ci soog a dugg zaaru essai la. amul benn problème ñaata lay doon ngeen bëgg. waaw léegi dinaa leen ci defal xéwal quoi. parce que cuir bii nii ñu ko dooree cuir deru ñaata ñaata moo waxal prix bi. waaw léegi bii da ngeen di def 5000 francs en gros quoi. loolu moom mais mais dañ ni ma dañ ni ma. waaw parfait dafa yombale. non ma la nëbbu su fekkee mën nga 3000 3000 ñu jël 50 benn. non non 3000 3000 moom. vraiment yaa non loolu lañ am moom yaa ciy jàpp. teg naa si nga. ñu bañ a dis non non ñu bañ a dis ñu ànd ma fay la waaw amul benn problème dinaa si jàpp ndax marketing bi quoi parce que yaakaar naa su réussir ca kaw rek suñu avantage day gis après quoi ci domaine bi loolu quoi mais vraiment amul benn problème waaw léegi nag leen neex ah. waaw waaw léegi xoolal foofu moo gën a sax waaw xoolal yow yaa ma a xam bi xaw ma ko attendre cinquante ah. cinq ma en attendant ma wax chauffeur bi wax chauffeur waaw ok waaw ok léegi une. waaw deux. waaw. jox ma wax sa number call ma ngeen di changer sa tur la. kii bu ko de. waaw. léegi xamoon na def. waaw. léegi comme chauffeur bi dama war a ànd moom. waaw waaw war naa jaar fële. pour. dugg ci gàpp bi. waaw léegi bu ko defee euh, saag bi est-ce que di nga mën a comme que yow kon ñëw da ngay jaataay est-ce que di nga mën a ànd ak moom dem kër gi. d'accord non mën naa koo yóbbu kër ga comme ça yow nga ànd ak moom. Euh, jox ko li nga koy jox bu ko defee yow boo boo boo retourné rek fekk ma kër ga moom. mais est-ce que def nga xam nga ñaata la. non cinquante paires n'est-ce pas. waaw waaw cinquante paires. waaw waaw xaaral ma calculer ko. trois mille cinq cent. ok loolu loolu loolu du problème dama ne yow dañuy jàppante incha allah. war a nekk est-ce que du nekk ay deux cent millions waaw 175 175 waaw man maa koy fay kii day yóbbu dàll yi ñu dem yéeg sama oto. voilà sama chauffeur mu yóbbu ñu ma wàcc gàb bi fay la. amul benn problème yaakaar oto bi non man ayca ñu dem suñu chauffeur fa Pape Faye toi aussi ah. parce que dàll yi rafet na macha allah. biñ ma ko waxee woon noonu laa ko gisee quoi. ok léegi Pape bon léegi da nga may xoolaaleel place moom ma ànd ak gars yi nii euh, ma ngi ñëw ah. du léegi jàmbaar léegi da may xaar xam hmm. ma dugg ci gab bi récupérer xaalis vite fait après ñu continuer ah mais mbaa doo gab bi laay nii rek. waaw amul problème dafa am ku may xaar ba. ok léegi léegi du mais copain ku baax la de. non ay borom baax la. non rawal rawal xam nga nit moom ni muy ñëwee ci yow. ak yaatuwaayam ak oyof bi nii xam nga. koy mën a jugé quoi mais li ma wan nii. non cool gars la quoi. vraiment vraiment gars yi moom. cool gars la cool gars la. oui mais mi ngi bëgg yàgg de copain. ah waaw ah xam naa affaire yi muy lijjanti nii moo sotteegul rek. ah mais xam man moom dama yaakamti quoi ak place ba nii. mais est-ce que doo ko pour pour ma mën a xama mu mën a ñëw rapidement parce que dama war a dellu. non waa aw ma numéro de. mais sa looy teg nii yow yaa ngi ànd ak sa waay mu ne ma mooy sa patron naa ma yoruma. numéro ban patron. waaye sa wax ma lu ma mën a dégg waaye yow ni nga di nga ànd ak sa ñaari copain yu nu daje fii nii si arrêt bi xam nga arrêt bi nekk si kaw bi nii fi arrêt Jakarta yi taxaw fi gars yi kalandoo taxaw noonu foofu lañ ma fekk juste may lekk clémentine ñu jël ma waxaale ak man fay ma 7000 francs nga naa ma ay nii ki naa. yow da nga wax ne kon gars yi génn fii xamoo leen yow. waaye sa waay yow mii laay wax bul ma dof loolaa la wax kët. yow mii xam nga gars yi laa wax mii nan te gars sama sama place day jël sama daaw nga ma yàgg na loolu de sa xoolal man xoolal xoolal man xoolal affaire man mënoo ma koo def de may a waaye man kon jàmbur nga ma lem naa ma ay kii yow waaye man mi nga ma aw ma njëgu carburant nag eh, eh, ah. samay premier client saa dama bëgg wax yow kon xamoo waaye ah, xaw ma leen waay gars yi waay xaw ma leen neex waaye maa ngi yow tey fii oto bi dama ko wàcc fii ak sama oto man du ma ñàkk sama wàcc ma dama ñàkk yow loolu loo bëgg ñu def dama lay wax amul oto man dama da ngay wàcc sama oto naan mam mbay day nekkoon na jaar gàll naan